مفاتيح البشر والأمن والجنات في الصلاة والتسليم على مقيم سنة jërë ngeen jëf seen mbokk taalibe yi ñoo ngi leen fàttali ba tey yéen a ngi ànd ñun di toll noonu li nga xam ne moo di bisub xaj bi amee fii si Ngaye Serigne Khadim Thiam di ko amal moom waa dëkk bi yëpp gis ngeen suba ba léegi mbokk taalibe yaa ngi fii di durus xaj yi tey programme bi tàmbaleegul wante gis ngeen tamit Baye Fall tamit ñoom fas yéene wane seen yéene yëkkati baatu laa ilaaha illallaah di sikula léegi ñu bàyyi leen ngeen daal di sekk teewlu si kër incha allah

بقولي وارزقنا سمادي في القلب مني وزدني فوق مسجوني يا أكرم من لم يجل برا ومقتدرا يا من لا تدري أفعال مجنوني وجيلي اليوم قلبا لا يفارقني والدوني موتي بمخرج ومجنون نبادني فلتجد علما ومعرفة واجعل ياتي اجرا خير ممنون يا زال للاكرم تيسيرا يا باب اني ولي بالله جاري نبيا سبحان ربي الكريم الاكرمين من قال لي إني إبيتك العيون والأمن مع سكوني ولم يذهب بلا في شكوري نفع منافع بالكتاب بلا حساب وبلا عتاب هوى سكري بلا كفاية وسألني بالإذن والجيران يكشفون عن كل أسجياتي معلم يدي بهكذا أهادي إذا تلوت آية فرأى لم ينقضي مكر ولا إبليس أو قول أو كذب أو تبديد أن يسمي من العين والقلاب ربي بما كتابك جميع لا كتابك فاق سياقة اليوم وكل خير وسياقة اليوم وجد كتابتي بسلاي وبين بكل جاد لاي مدى لي لك متيسرا يقى إني وإن بلا جادي رفيع يا فاقد القدر والقلب يا wal amri lil alamin barke xasida wa barakaatuhu yéen bokki jullit yi bokki taalibe noo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen baalu xàq te di leen sant jant xol te di ko seereel Sëriñ Tuubaa bu wér te boobu yi ñu ci jiital ak Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke mi xalifa mboolem murid yi di ko ñaanal fan wu gudd ak ub wér ba ni mu yéene ci liggéey Serigne Touba bi mu liggéeye ko nu kawe njortam tan ànd ko moom ci barkeb xasida yi di beral tamit ab ziar akub nuyoo boo xamante ni dafa jóge ci dong yépp di Cheikh Makhtar Mbacké moom Serigne Mouhamadul Moustapha mu sëriñ Bachiru mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi doon wasiilaw sëriñ Xaadim Caam mii doon suñ sëriñ ñun ñëpp ndax taxawaayu sëriñ bi la fi taxawee noo koy ñaanal ci mbooleem xaside yi nga xam ni yenn yendu nañ ko fee jàng ak alquran lim yéene ci liggéeyal ko sëriñ bi mu liggéeyee ko lu kawe njort tan ànd koog moom ci barkeb xasida yi kàddu gi nag ñu ngi koy wax ci kàddu Baye Ndiak mi nga xam ni mooy wayjuru Serigne Khadim Thiam mii dajale ñu fi ngir jëmmi xasida yi sëriñ Tuubaa kon sëñ Maxtaar Baay Njaag ak i mbokkam ak i njabootam ak bokki taalibe yépp ñi ngi lay nuyu di la ziyaare te di la ñaanal te loolu yépp ñu koy jaar ci sëñ Xaadim mu àggale la ko ngir li ngay ab buntam ci sëriñ bi bu loolu jàllee tamit noo ngi ñaanal suñ kilifa bopp ñun ñëpp muy ahlu xasida yi sëriñ Hamzatou Mbacké mu sëriñ Chouaib ci taxawaayam ci ahlu xasida yëpp te umpul képp koo xam ni doon nga jàngkatu xasida wala nga di ci yëngu ñu ngi koy ñaanal moom it fan wu gudd ak wér ba ni mu liggéeyal sëriñ bi mu liggéeyee ko nu kawe njort te ànd ko moom ci barke xasida yi bu loolu weesoo tamit sëriñ Xaadim mi ngi sant ëllu xasida yépp cant xol boo xam ni fa mu àgg ci moom mënu koo jotal ci làmmiñam xanaa di leen bàyyi ak sëriñ bi moom bi nga xam ni moo amuk pay mu fay leen gën gi pay ci barke xasida yi mi ngi sant tamit mboolem kilifa yi nga xam ni dañoo bàyyi ko ci ay gox ku mel ni Euh, sëriñ Abdou Samad mi nga xam ne mooy loxo day jooru maxtar Maxtaar mii mu am ndigal ci sëriñ Maxtaar bi bis bi tàmbalee ba tey jii waxtu wu ne dikk na ko fi di nemmi ko liggéey bi di ko fooglu leen lu ci nekk muy xool fu mu toll di ko leeral sëñ Maxtaar ngir lépp sëñ Maxtaar lañ koy defal ngir mooy kilifa sëñ xaadim doon suñu kilifa ñun ñëpp sëñ maxtaar sëñ abdou samat mat na sëkk li nga ko tànne woon yabal ko fi biig rek a ci mujj ba bërki biig guddi gu ne dana fi ñëw di foglu liggéey bi di seet fu mu toll ànd ceeg yéene ak pëstéef kon noonu lay seereel ne ah nañ ci moom lool ci pas aku doxinam noo koy ñaanal fan mu gudd ak wér ak mucc ak mucc la ci barket mbootum xasida yëpp kilifa yi fi ñëw tamit dañ leen mënta tudd ñoom ñëpp waaye da cee am ay benn benn yoo xam ni buñ leen tuddee mën nañu ëmbaale lu bari ku mel ni sëriñ Musta'in mu sëriñ Moussa Nawel mu sëriñ Moustapha mu sëriñ Bachir doon kenn ci nun ak sëñ xaadim mi ak heure xasida yëpp di ca teg tamit sëriñ Ahmadou Mbacke mu sëriñ Mouhamadou Mourtada mu sëñ Cheikh mu Daaru Mooti doon kenn moom ci sëñ xaadim doon soppeem doon wëllëreem doon léppam di sant tamit sëriñ Cheikh Mbacke mi nga xam ni moo fi teewal sëriñ Hamsatu Mbacke ak mbooloo mi mu àndal ku mel ni sëriñ Amsatu Jaxate ak bokki taalibe yi mu àndaloon ñëw teewal fi sëriñ Hamza ci bis bii te lu jiitu loolu jëfi sëriñ Hamza moo jiitu ci bis bi ci am yéene ak pas-pas ci ëru xasida bu loolu weesoo tamit waa dëkk bi yépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla li ko tàmbalee ci Baye Ndiaye mii nga xam mooy suñu wajur ak rakkam ji mu nekkal muy Baye màgget aku njabootam ak doomi boppam yi li ko tàmbalee ki ciy mag ci jigéen ki ciy mag ci góor ku mel ni Pape Thiam ba ci ka gën a doon wone ak dëkkandoo yeeg ñépp Baye Ndiaye sant na leen gërëm na leen bég na lool ci teewaay yi ak ahlu xasida yépp ku ñuy wax sëñ Mouhamadou Mamoun Diagne ak sëñ Moustapha Guèye xasida bu pir ak mboolem kilifa ya dañ dul mën a lim ñëpp waaye kenn ku ne bi nga jógee sëñ Touba moo la tax a jóg te sëñ Touba gis na la te moom ak gisam mooy li am solo kon yàlla na gis ñëpp te yëg ñëpp ci barkeb xasida yi di sant tamit sun mbokkum taalibe moo xam ne dafa wàcce boppam ànd ak ëllu yi di ko jàngandoo ak ñoom lu nu yëngu mu ànd ko ñoom muy sëriñ Moustapha Diagne ci liggéey bii di barabu sëriñ Touba yi ci dëkk bi yéen ñëpp ngeen xame ko nu raw noonu neen te dëkk bi yëpp futti ko ànd ko moom ngir màndargal barabu sëriñ Touba boobu ak pastéef yi ngeen ànd ak moom ak yéene yi mu rafet lool nu am luñ ci xam te seere ko moom sëñ Moustapha ñu ngi koy ñaanal ci liggéey yooyu te rafetlu ànd gi mu ànd ak dëkk bi yépp ci barab boobu jëmmi bis bi tamit ànd na kook nun ci fànn yépp moom it ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal fan gudd ak wér ak mucc ak yokkute di beralaat tamit cant heure xaside yi dama ciy delluwaat ndax li gënal sëñ Tuubaa ci kaw suuf fi mu ne nii ñoo koy def loolu nag day aju ci xol danga gis nit ku boof koo xam ne du am sax lum naane kafe waaye fees dell bëgg sëñ Tuubaa ak di ko yëg am yéene lool yéeneem joojee sëñ Tuubaa du ko bàyyi mukk muy naxsaay bis bii lu ko àggale fu mu àgg rek pas-pas yu sell yu yéene xaar yi lu mel nii rek moo ko àggale fii mu àgg kon ahlu xasida yi xëy ñu kenn kenn la sa mbubb woyefut ndax li gën a sëñ Touba muy vie privée ci buñ ko doon wax mooy xasida kon ku koy téye rek doonatoo nitu ordinaire noo ngi leen di sant bu baax a baax a baax suñ cant amut solo waaye yàlla na sëñ sant ñëpp yàlla na sëñ Touba ci ñëpp ci barkeb xasida yi sant nañ lool ñi ci def seen alal ñi ko amut te am yéene ñoo ëpp fopp loolu sëñ Touba xam na ko kon wax ji du mën a gudd yéene jiñ ci amoon ci jottali ko niñ ko bëggee mënewuñ ko noonu ren nag lii boo wootee mbooloo mu toll ni wuy si la ci barke xaside ak sëriñ bi war nga leen a sant gërëm leen lool rekk moo tax ñuy jël kàddu bi di ko wax waaye ren liñ fan noonu mooy li waroon a doon ab soññ ci koo xam ne day wax ci sëriñ bi wala muy wax ci xasida nit ñi di ca soññee ren dañ koo dëxëñ ci toog gi toogoon di durus ak bëgg koo fanaane li siñ bi fàggu ci xasida yi mu def ko ci biir xol yi def ko ci ruux yi ñu ànd ak moom bu bañ fiy dellu siwaat loola mooy suñu yéene ren moo tax bu sëñ maxtaar buñ ko jottalee ay kàddoom rek lenn lu ñu fi waxaat amul lu dul diw ñëwal jàng bu kooko noppee ñu ne diw ñëwal jàng ba ba asamaan di set ñu ñaanalante kon ren sunub soññ dañoo bëgg mu bàyyi ko ci meewum xasida yi dugg ci sunu xol yi dugg ci sunu ruux jaxasoo sunuy deret fu ñu yëngooti mu di nu yëngal fu ñu dale mu di dalal ba bañuy dem jannatul xuldi aw firdaws noo ngi yamale foofu kàddu yi cant yi ak ngërëm yi sëñ bi gis na ñëpp yëg na ñëpp li ci mënta ñàkk mooy sëñ xaadim nun duñ ko sant duñ ko gërëm waaye li koy def mooy ñaanal ko tey sàkku sëriñ maxtaar loo ko daan ñaanal lu mu bari bari bari du ëpp ci moom du ëpp timit ci dongo yi ànd ak moom liggéey bi kon nun bu suñuy làmmeñ sobee woo ba mënunoo woo sëñ bi mun di wuyu boole gi leen sëñ bi boole ci boppam mën naa tax bu ngeen ko woo rek mu wuyu leen mm-hmm. noo ngi ñaan na nga woo sëñ Tuubaa ci jëmmam bi gi li tax ma jël ko daawut am ndax sëñ ma mbay mi suñ boroom dimbali na ko lu rafet rek la xam moom lay wax moom lay seq te àgg na ci ak sëñ xaadim foo xam ni lu mu wax day mel ni boppam lay wax ñun ñëpp seere nañ loolu kon fu fi waay mën a jóge rek sëñ Tuubaa yëg na ko xam na ko gis na ko yàlla na la fay loo xam ne da nga koy yëg ba ilaa yawmi diin di yëg sëñ Tuubaa ba ilaa yawmi rawatina kuréelu jaalbatu maraaxib bi bàyyi koo France seen jiit di xaadim silla sëñ xaadim silla ñoo doon def bisu xasida bi ci le cinq euh, bi weesu ca France Paris ñu demee lu xasida yi loo xam ne seen yéene rëy ñu amoon yéene ci jànkati xasida yëpp ànd ak ñoom bis bi comme ni ñu ko defee fii te mënuñoo jël ñépp ñu yóbbu ñu ne dañuy tàmbale ba ñuy tàmbale yàlla dogal ñu tàmbale ci suñ xaadim daggal ko billet mu dem fekk leen foofa ñu ànd ak moom bisu xasida ba mu àgg semaine la mu daldi ñibbisiwaat kon ñooñu seen yitte réy na lool bëgg nañ ku leen ñaanal ba liñ yéene lépp ñu def ko yemuñu ci woo ko mu ñëw fa te noonu lañ ko yéene woon ci ñi ko bokkal ñëpp ma mbay ngi fi suñ Ibrahima maa ngi fi sëñ Abdullah jànkatu xasida yépp ñu ngi fi waaye wàññi bu ne ci benn lay tàmbalee te ñoom ñëpp ñu maase tamit. yéene ko sëñ xaadim lool lool lool lool kon waa kuréelu jaalibatu boobu ñu ngi leen di sant bërki démb lañ ne pësteef bi ñu gis sëñ xaadim ci bis ak lañ fa yëg sëñ tubaa seen digg ak xasida yi ak ñor gi mu ko ñor nga xam ne loolu baraana koo xam ne bu ko amoon day làqatu ci ko ñi ngir toog foofa liggéey lu mu indi waaye jëmmi xasida yi ñor bu mu ko ñor képp moo tax diir bañ ko fooy ba matee daal dal di bàyyi gépp ñëwaat fii ngir liggéeyu sëñ Tuubaa hmm. kooku lu mu wax diggam ak sëñ bi wér waaye xasida yi wor kenn yaa di jàpp jàpp ak waaye ku ñu téye da xam ne mbër téye na la moo ne dootoo rëcc moom nag kenn nattat bi daan na ko jéem a téye waaye wóor na ko ni xasida yi téye nañ tey kanam lay jëm nag insha allah waa kuréel booba muy ñoom xaadim si la ñooñu lañ jël matoon nañ juróom benn nit walla juróom tey fi lañ yendu tey ñii ci guddi lañ war a départ fii ngir delluwaat biñ ñee ñëpp ki leen soññ ci xasida yi di say Hamza lañ ne coow dem yendoo moom ziar ko sant ko ci taxawaay ba ndax nii mu demee ak seen ba sañ-sañ sañ-sañ buñ ko amee ñoom xañ na sàkku nañ ko ci xaadim waaye yëpp buñ yëg ni am na fu mu ko teg rek la ñoom kanam lañu war a dem incha loolu nag day jëf ju rëy sëñ Tuubaa moom dara rëyut ci moom sax waaye loolu yitte la tam man wax dëgg fa yàlla maa ngi soog a gis bisu xasida boo xam ne jaral na aw nit ñu nekk foofa mu jaral na dagg bi ñëw fii hmm. kon loolu pas-pasam la ak jaayanteem sëñ Tuubaa mu jaral ko ci xasida ak jëf-jëfi xasida tamit jëfe xasida day réy lool te benn baat bu ca teg kon duma bëgg a guddal ngir bëgguma xaabaabal waaw ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi sant ñëpp euh, bàyyi njaag nag daa am loo xam ne bu nu ko santee danañ ko def mooy sëñ Jibi Jaañ Jibi Jaañ Jibi Jaañ waxuma bàyyi njaag sant na la dama ne la ëllu xasida yépp sant nañ la rawatina kuy jàng jaalibatu maraaxib yàlla na nga ci dajeek ngërëmal jaalibatul maraaxib ak yàgg kooko àndal kon noo ngi ñaanal ñëpp nu fëggaat ci suñ xol yi adduna ak kiñaan ak yëg sa bopp ak gis sa bopp xes xasida jikko yooyu bokkut ci moom nañ ci gën a góor góorgóorlu sëñ maxtaar nga jéggal ma de lii nuy wax suñ mbokki dong yi ñu séqal liggéey bi rek la waaye waral toog ñuy dugg ci loolu waaye li ma ci jublu rek mooy ku sa xol set ba sëñ Tuubaa di jëfandikoo coobareem bu boobaa rek danga nga xam ne góorgóorlu ci xol bu set rek mooy ne am solo ndax suñ xaar yi ñi ñëw ñëpp buñ ko ambalul woon cofeel ak pas-pas du leen jaral dagg seen yi tey di ñëw fii ci suba ba léegi te fas yéene koo fanaan loolu nag la koy maye mu yéene ji muy am ci nit loolu sëñ suñ borom dafa màndu da koy fayaat moo tax faaw dañuy jóg fekk si ko loolu liggéeyu xasida la kon nun ëllu xasida nan gën a góor góorgóorlu gën a boolewaat suñ bopp ndax moom moo wax ne suñ borom na nga def murit yëpp na nga leen duggal ci sa sëñ sa te mbooloo yëpp nga boole leen lii ak mbooloo rek mooy li ko mën te kenn ku ne fexe ba li ngay fas ci sa xol boo wéetee nga seereel ko sëñ Tuubaa ak boo wettalikoo xam ne àdduna dafa gàtt amut solo lu rafet rek mooy li ci am solo loo bëggut ku la ko fay bu ko yéene nit bu ko wax bu ko def kon noo ngi tuub tey jégglu tey sant bokkitaal bi yépp ci guddal gi bëgguñ ko woon waaye yëf yi nun ñëpp fu ñu ko foogoon rek kawe na suñ kon ñi fi teew ñépp nañ ñaan sëriñ maxtaar mi mu yàgg fi te wér Baye sant na jibi nun heure xasida yi noo ko njëkk a sant kon nun ginnaaw bu ko santee ba noppi yow yaa ngi sant sëñ jibi jibi Baye Ndiaye nee na ñu ngay sant waaye nun heure xasida yi ñoo ko njëkk sant leneen li ci tege tamit mooy Baye Ndiaye mi sant na sëñ xaadim bu baax a baax mi ngi koy ñaanal euh, dama mënewut wax ñu wax loo xam ne mënuma ko euh, mënewuma ko waaye ñu jéggal ma rekk ci ni muy euh, safaanoo sëñ maxtaar biig Baye mi mii jooyaloon na ay cant ak ngërëm yu bari yu jëm si ci yow ci sax woyof ak jàpp goo ko jàpp moo ko njabootam te loola man mat naa ci seere mbuur doo fa ñëw mukk te xaadim mi néew ma sëñ maxtaar di ñëw na fi léegi te loola li muy doon doon gone bàyyi xel goo bàyyi xel bàyyi njaag aku njabootam moo tax kon bàyyi njaag mi ngi lay sant ci weex gi ak safoo gi njaboot gi ak jàpp gi ak ñaan fi nga ko féete xam na ko bu baax a baax mi ngi lay ñaanal yàlla suñ borom bu sa fan te wéral la te muccal la ba li nga yéene liggéey Sëñ Tuubaa nga liggéey ko lu kawe sa njort ci barke xasida yi allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin mustafa wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi waj'al li bi jaahihi za qabulin wa rida jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ njaag yaag sa njaboot Seydil Moxtaar mi ngi lay nuyu nuyu mbooloo mépp di jooyal ak cantam jëme ko ci yéen sëriñ njaag dama jëkkanaw ba nu ñëwagut mais sama cant ci sëñ mataar sama cant ci xaadim caam lépp a ngi ci yow kon xaadim da ngay si sigal nga sab sëriñ sigal nga sa woy jur soo bëggee ci yoon wi nga xam ne moo yoon wi nga xam ne ci la njariñul tey nekk ak njariñul ëllëg ànd ci ak sa bokk yëpp ak sa dëkk yëpp ak sa jullit yëpp bokki jullit yëpp ndax baas bii tey ni mu tollu mbooloo mi fi ne yendu fi kenn ku ne ŋabbu sa téeréb yendu ci bangoon ngoon nga fas yéenee fanaan loola lu ko gën a kawe ci jaamu yàlla lu ko gën a kawe ci liggéeyal Serigne Touba lu ko gën a kawe ci dundal ngirum Serigne Touba dafa amul sëñ Mataara ngi nuyu ñëpp. di sant ñëpp di ñaanal ñëpp ak mucc ak doliku nu tuyaat fi déwén te kenn bañ a manqué te kenn ku ne yokk ba yëg ko te itam ku tax ku dugg ci baas bi maa yéene digg ci xéewal yi nga xam ne sëriñ doo wàcce na ko ci xasaayit yi ak mbóot ma yàlla na la ci yàlla duy ba ma fee dell te jëwriñam ji nga xam ne moo ko jiite di dem ba faraas di atalam njàngam benn ñu baax ñëpp jàpp ko ndax sëriñ Muntaxa mii sëñ Basiiru ci kaw suuf tey day bandi xaadim mi rek koor gu ne moom rek teg ba bu ñuy wari kon loola tegtal la ci xam ne kon yow sëñ xaadim sab la ngay àgg na sigal nga ci sab sëriñ sigal nga ci say bokk sigal nga ci say wajur kon gannaaw waxtu wi dafa gàtt nag ñu gàttal ko rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi la wa barakaatu. amiin amiin amiin bisu bi. Amin.